ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu képp koo xamante ni si mi ngi fekke sunu toogaay ak sunu teewaay am kilifa gu tedd goo xam ni fajkatub aajo la ñëw seet si ay rakkam seet si ay xaritam seet si ay doomam seet si ñi nga xam ni ñoo ko tax jàpp ko jàppale ko muy jumeau avie yi nga xam ni tey. ñoom ñoo fi dajale nit ñi nit ñëpp ci seen teewaay lanu fi ñëwee nit ñëpp ci seen yitte lanu fi ñëwee ko ne xam na ni tey nag dañuy inauguré bikit bu mag fii ci Ouest Foire bu ngeen gisee lii ngeen gis ngeen xam ne fa tabaarakaal lu yees tàq la loo xam ne nag nit ñëpp dañ leen a war a ñaanal ñu tàmbale ko ak bismillahi rahmaani rahim eggalee ko ak alhamdulilahi rabil alamin jumeaux yi nag am gan gu tedd kii nga xam ni mooy Yaay Fall di taalibeem Serigne saali Mbacké di nit ku baax waaye di fajkatub aajo boo xam ni mi ngi ndakaaru tubaarikàlla di def lu baax di ko wax di ko jëf jumeaux yi nag ñoo ma yóbbante ñoo santal nu ko gërëmal nu ko ndax lii mu def rëy na ci ñun ku ne nag gis na mbokkam mi nga xam ni ak xaritam bi nga xam ni ñoo bokk li ñuy def ndax damay faral di wax ni ñi bokkub teen ñooy laxasoo ay goj muy soxna Aida Saliou barki dem bi nu demee këram dafa yëkkati xaalis ma rek yéena ma wax loo bu bëri jox leen ne leen lii kat maa ko tàmbalee ci bis bi maa ko tàmbalee ci bigit bi te yemuma ci lépp lu di ñaan katub yo ay nit di ñëw këram muy faj seen at trois heures du matin ak deux heures du muy régler soxla ci li nga xam ne moom la ko yàlla dénk ne faral di wax ni ñi ñaan waaye ñiy ñaan moom mii nag bokk ci ñooñu ci ñaan jumeau yi nee na lay sant ñoo lay gërëm ñoo ngi lay ñaanal yàlla tànk yi nga xam ne moom nga jugee fa nga jugee ñëw fekk leen fii yàlla ko suñu borom de tànk ngërëm ak tànk dellu yi nee na amuñu sa fay ndax jàpp nga ci bis bi jàppale nga leen taxawu nga leen ci lu mën a doon taxawu nga leen ci zahir taxawu nga leen ci baatin ndax nag sag ñaan dal na leen ndax sag ñaan moo waral ñu taxawal lii ñu taxawal ci turu Wally Ballago Seck ndax Wally kat seetaanu leen benn yoon ñu lay seedeel loolu kon ma fekk fi moomoo sama xarit bu baax bi ñu bokk nag xayta ak yaay suñu collègue Daawur Mbaay muy sama mbokk ñu bokk ko Waly Balago mi nga xam ne moo jàpp xale yi tenir leen yiir leen moom laay jox sa kaddu mu tontu zimo yi nee nan sant nañ la gërëm nañ la jaajëf nag mënul weesu jaajëf yaa baax mënul weesu yaa baax yaa gën mënu ko weesu gërëm nañ la sant nañ la bu nu paree ñu bàyyi la ak journaliste d'accord jumeaux yi moom comme lu ma wax chaque yàlla moo ñu boole euh, mu ñu doon ay nit yu baax ñu am jotu doomu aadama parce que koor day jot sax ñu def déplacement ñëw ba sama kër si ma te bu leen neexoon duñ ko def ma leen defaloo ay vidéo ñu koy def si ñu mu leen neexee te laaj ñu ma dara jox ma sama cër jox ma sama wàccuwaay woo ma na ma yaay Fall dama sañoon da ngay ñëw fii nii si boutique bi dañ koy inauguré man ko incha allah aw ma jot sax mais dinaa def le ñëw. man chaque lu may wax loolu ma woowul du ma si dem man yàlla moo ma bindal ak programme lu mu rëy rëy rëy ku ma woowul wax ma ko du ma si dem ku ma woo damay dem parce que li ma wax chaque jour rek réew mi dootu ma fi seetaat di ma fi comme ça def naa fi lu ne wax fi lu ne kon kooku nekkatuma n'importe qui si réew mi programme ma ku ko yëga dama ñëw mais ñoom ñi tamit li ñu wax chaque jour rek dañoo bokk luñ mënut a séddoo muy soxna Aïda Sall suñu yaay bi si topp mooy muy Waly Ballago Seck waale barki dem moo njaay lañ dem foog mu woy ma lu rëy barki Seydina moo xam ne ku ko xool sax xam ne lii da ko wax ak cofeel ak bëgg chèvre gi mu bëgg chèvre su ma xoolee loolu lay sentir ba ñu bari dañ naan ma waale woy na la loo xam ne mosu koo woy nit ma ne ko parce que yëg-yëg la si xol nit lu mu sentir si xolam rek loolu lay def mu naturel te ñoom dañoo bëgg waale te waale Baay Faal la man yaay Faal laa dama koy bégee ndax Cheikh Faal laa ko bëggee barki Serigne Saliou ñii lu nekk dama si man lu wax chaque jour man yaay faal yaay faalu ñëpp laa ku am sa programme ma ko si kàttanu yàlla dama lay teewal nu ma la war a teewalee ñëpp laa si yemale. ñi dañoo bëgg waali te yàlla rek tax bëgg yàlla moo koy def si nit mu naturel tey lu mu naturel moo tax yàlla fayee leen lii te lii seen sag la ndax dañuy topp waa te yàlla tax chaque jour dañuy dem vak di sonn di jël seen i téléphone di film di yàq seen i paas loolu bëgg la amour la comme Yaay Fall nu ko nit di xoolee bëgg ko di yëkkati ay taranga yu dul jeex di ko defaral Yaay Fall noonu la nit di bëggee nit topp ko bëgg la rek man waal dama ko bëgg bàcc Serigne Saliou moo tax bi may woy yàlla fay ma bëgg gi ma ko bëgg xale yi daa lañ si def lu doy waar lu neex kontaan na parce que chaque jour ñu vidéo di ma envoyé sama tiktok temps yi daa waa leen koy toj. mais da ngaa waxoon xale. xale man xale laa. dafa bëgg lu rafet. ba pare xale yi man lañ bëgg. Sénégal bu nekk ak génération bi xale yi. Uh-huh. xale yi man la ñu xaar

ñu ni vingt ci xew bi trente ci xew quarante ci xew bi cinquante ci xew bi soixante dajil beneen baaget te saxat soixante lañ wax tey wala xam nga wala cent mille la cent mille francs laay bon tay rek wala dix vingt trente quarante cinquante soixante soixante-dix quatre-vingt quatre-vingt-dix te dama commencé maa ko jox su xol bu sedd liggéey leen leen nga yàlla ñoo dogal yaay faal mii li nga def duñ ni ndax yàgg ngay def lu baax koo àndal dimbali nga ko koo àndal teral nga ko ci li la yàlla jox waaye jumeaux yii ku leen dimbale sa bopp nga jàppale ndax nag seen yaay da leen gërëm réew mi booy àndal da ngay àndal ñu am ñaanu waajur réew mi booy jëflan da ngay jëflante ñu seen yaay gërëm man xale bu yaayam gërëm wala xale bu yaayam ree dama lay naw nga nekk nit ku baax di social nag bëgg bi nga bëgg mère ay Saliou loolu maa ci xam dara ndax do ndax ba ngay ñëw kër mère Aïda Saliou nga ma fekk mère Aïda nag nekk nit baax du def lu ma yëgul barki ba muy jox si yi xaalis sama loxo la jaar kon boo ñëwee yow jaaraatal fii kon nag lu baax day fekkante yàlla boo tàggoog teraanga Zimo Zimo yaay faal nee na lim leen jox nii xam na ni def ngeen programme seen baas bii wax kese indiwu ko li fii dem wax kese indiwu ko li ñuy lekk wax kese indiwu ko li ñuy naan wax kese indiwu ko nee na nag moom commencé gul nee na bitig bii heure bu ngeen ko di ngeen ko gis bi ngeen bëgg mi ngi si bu soobee yàlla bu ngeen toogee jaayu leen sax bu ngeen ko wooyee mu jaay laayif te mu wées leen moo leen jox 100000 francs nee na ngeen jël si café ndax eh mère Aïda Saliou dafa ñëwoon ngeen def café suba yaay Fall ñëw ñun ngeen def café suba kon nag na jar ji bëre na ñëpp naan wasalaam jërëjëf mi ngi noonu wasalaam